Euh, mbokk déglukat yi asalaamualeykum dal leen jàmm ci Sud FM seen rajo 98.5 kàddu gi euh, ñu dikk ak yéen ci seen émission parlons santé ak suñu euh, partenaire bi nekk ak dev tey nag ñoo ngi dalal Momar Tall Seck moom nekk na sociologue yore lépp loo xam ne si moo aju ci wàllu plaidoyer ci ak ACDEV ñu fas yéene nag waxtaane ak moom euh, li nga xam ne si moom moo nekk ëmb yu teel yi njeexitalam ci fi nga xam ne si moo nekk école bi euh, loolu tax nag euh, sëñ Momar moom la ñu daral tey ci suñu studio ni mu egsee nag ñu di ko ci sant di ko ci gërëm ndax c'est pas évident ak jafe yi nga xamee ne si am na ci bi mais surtout embouteillage yi nga xam ne si moom lañ seetlu nii nga xam ne ñu ngi dëgmal fet koo ci woo mu teel a ñëw war nga ko sant war nga ko ci gërëm ñu daal di ñëw di waxtaane nag li ñuy wax njeexitalu ëmb yu teel yi euh, ci fi nga xam ne si moo nekk lekkool bi euh, tey jii boo ñu doon wax ëmb bu teel Mame Makhtar Talla moom mooy lan. Euh, merci beaucoup soxna Awa je pense ma laaj am na solo te dinaa ci sawar tontu d'ailleurs c'est même évident ñuy ñëw ci conséquences yi foog ñu comprendre d'abord lan mooy. ëmb bu teel ëmb bu teel. Mhm. OMS bi nga xamante ni moom mooy. organisation mondiale de la santé. Mhm. kuréel gi saytu wér gi yaram ci àddina bi yëpp daf ki d'accord sax ak ministère de la santé du Sénégal. Mhm. ak euh, yeneen réew yi ñu d'accord ni daal nit ki bu fekkente ni jigéen la euh, jël ëmb te amagul dix-huit ans dañuy jàpp ci moom. te amagul fukki at ak juróom-ñett mhm. la. d'accord dix-huit ans mooy kon daal jigéen. en général. Euh, warul ëmb te amul 18 ans léegi nag boo ko boo ko xoolee noonu dafay xaw a indi benn problème bu ndaw rek de de compréhension mais aussi dafay indi rek aussi beneen benn problème d'interprétation euh, nañu comprendre suñu état yi nangu ni 18 ans moo ëmb moo gën ci tàmbali ëmb et pourtant boo demee ci sunu code de la famille. 16 ans jigéen dañ koy maye à partir de 16 ans mën nañ ko maye. en sachant chanque ni. Mhm. ki ëmb ki jël ki ñu maye à 16 ans mën na ëmb à 16 ans. 16 ans mën na ëmb à 17 ans. voilà même à 16 ans. kon xam nga paradoxe la. parce que ci 16 ans comme année bi 12 euh, mois la. Mhm. ku nu maye le premier janvier. ma balaa nga génn sa seize ans mën nga ci jël ëmb. donc aberration la. Mhm. loolu loolu tout le temps ñi def plaidoyer ñu ngi ñu ngi fexe tout le temps di amener l'État di appeler l'État à ñu jéem a jooyanti situation boobu. waaw ah, méngale code de la famille bi ak li nga xamee si mooy engagement yi mu jël. voilà parce que mënoo bëgg dara et son contraire. contraire voilà mënoo ni lii moo gën ci xale 18 ans parce que yaramam. nangam nangam. Mhm. bu ëmbee avant mën na ko indil gàllankoor. nangam nangam mhm. après à 16 ans moom problème la soi-disant en passant mais pour répondre à ta question et stabiliser un peu bi. mën mm-hmm. jàpp rek ni euh, ëmb bu bu borom ëmb avant 18 ans dañ koy jàpp comme ëmb bu teel. bu teel bu teel waaw. léegi ëmb bu nit ëmb avant muy am fukki at ak juróom-ñett dafa nekk ëmb bu teel. Mm-hmm. xanaa kon ëmb bu teel boobu dafa am njeexital yu ay gàllankoor yoo xam ne daf ko koy jural. absolument parce que dañuy jàpp ni. Mm-hmm. jigéen ba muy am. dix ans à peu près naa rek euh, xaleel la muy enfant ci tubaab. boo xasee ba dugg maintenant onze ans jëm kaw. dañuy jàpp ni mu ngi dugg ci njagamaaru. waaw dañu mën a wax ni xaleel bu jigéen la jeune fii mhm. dañ ko jàpp comme njagamaar. loolu français di wax un peu adolescente. du dëgg. Mhm. mais yàlla dafa dogal nag mu nekkee ci phase de transition boobu pour jóge ci xaleel jaar ci njagamaar pour nekk. jigéen mhm. bu nu mën a jàpp ni mat na muy 18 ans yooyu yaramam dafay subir benn transition à la fois psychologique c'est mooy compliqué mhm. mais aussi biologique maanaam ci yaramam donc tant que mi ngi ci processus boobu ah. maanaam ci période boobu yaram yi dafay soppali. day soppaliñu ko. Mhm. pour pour mën a bàyyi euh, yaramu xaleel bi. dem ci yaramu jigéen bu mat mat sëy. loolu cette phase de transition boobu nag dafa délicat ci ci nit ki. dafa doy waar dafa doy waar malheureusement ñu bari ci bàyyi xel bari na luy yàqal nit ci àddinaam foofu la koy foofu la ko dale woon te daf koy topp à vie autant sur le plan psychologique mental et que sur le plan biologique biologique moral ci plan yëpp yëpp mm. moo tax parents yi dañu war a bàyyi xel trop trop ci loolu ma wax nii période de transition boobu noonu mm. euh, parce que bëriwaan na looy faj loo nit di màgg di ko faj. mu nekk lu chronique ci moom wala à mm-hmm. foofu la woon soqe ko. aussi bien ci yaramam ci xel mi. Mm-hmm. Euh, bu dee ci yaramam euh, li tax ñu gën a war a mën a bàyyi xel ci coow loolu moom mooy li ñuy wax ay cëru sëyukaayam tàmbalee ko ca njurukaay ba ak li ko wër. Mm-hmm. dafa nekk di màgg pour mën a ëllëg mu mën a taawu ëmb bu dee jigéen. bu fekkente ni lii màgg di taaweeku yàlla di def ci ci moom la muy def ci moom instant boobu nag ngir mu ëllëg mu mën a dékku ëmb. Mm-hmm. te du ci sonn. Mm-hmm. Euh, yaram bi di ibbi nànk-nànk di màgg nànk-nànk te màgg dafay ànd ak ay ferñeent yu dugg yuy sotti deretam di sotti ci ci yaramam pour mu yombalal màgg boobu parce que xam ne ne ëllëg bi daf koy soxla day fàggu ëllëg mm-hmm. doom wala mën a ëmb doom su parewul par par inadvertance wala ci tayef ak wala ak lu mën a doon. Mhm. ci luñ ko forcer. maanaam ci ci appareil génital boobu ngay wax euh, da ne dafa nekk di di préparé wu. Mhm. dafa mel ni basang bu yàlla suñu borom di ràbb. tapareegu tapareegu ca. voilà te très bien sax donc buy ràbb déjà te pareegu ci moom. heureusement sax bi nga jëlee. Euh, exemple basang. basang waaw parce que basang ab lal la laytaay la buñ koy buñ koy buñ koy koy euh, ràbb. Mhm. dañuy fexe ba mu nekk lu dëgër. waaw du gaaw a fàcc. maanaam bu ñu nee roseaux yi gën a yu mûr yi nga xam ne ñor nañ moom la ñuy dagg. te bu ñuy fastante euh, xànc yi. Mm-hmm. dañuy xëcc dëgër di xëcc bu baax ndax mu dëgër. léegi nag bu dee bu dee nag xale buy màgg rawatina ci cëru njënjë ci ci cëru euh, sëyikaay yi wala cëru jurukaay yi. Mm-hmm. c'est différent euh, dañuy fa fa ñuy fa ñuy préparé woo ngir mën na mat donc dara dëgër gu fa. Mm-hmm. li mën yëpp mën a déggu yenn dëkku yenn méthode yi. dara pareegu ci pareegu ci. li tax muy mën na jël jël jënd yenn corps étranger yi ëmb ko ëmb bu rafet. du ci am benn gàllankoor dara pareegu ci. su ko ci ëmb fekkee te dara fekkewu ko ci cest à lu matul est-ce que mën na yor lu mat loolu question bi ñëwaat après ci débat bi. est-ce lu lu matul. waaw est-ce que mën na ëmb lu mat. Mhm. looloo waral ab bu ñu ci conséquences yi. ndax ndax lu xaay mën na denc lu ñor. très bien bu ñu ci conséquences yi on verra sur le plan euh, biologique yan conséquence la mën a indi. donc pour wax rek ni euh, à ta question que ni na nit ñi bàyyi xel rek ni processus bu doy waar la mais aussi foofu période bu doy waar la. Mm-hmm. dafa bëri ay gàllankoor yu ci yu ci mën a laxasu bu dee waaj ñu koy waajal parewul. mu mm-hmm. jël fa ëmb. donc loolu moo tax ñu naa donc période boobu yàlla dafay def di tabax li nga xam ne si moo nekk yaramam. dara matagu ci tabax bi dara pareegu ci. dara pareegu ci kon ça veut dire que tabax bi dara pareegul dara waru fa mën a sos. mi ngi mm-hmm. mais neewuñu ni xale bi sax peut-être mën na selon la loi mën na sëy mën na mën na mën na contracter mariage waaye ëmb moom beneen problème la sëy si sax beneen problème parce que cër yi cër yi benn matagu ci. Mm-hmm. mën nga may nit pour neex sa doom sax yaa un an mu am deux ans trois ans kooku beneen débat la. waaye relation sëy maanaam li ñuy wax relation sexuelle. sexuelle jokkaleen si diggantaan ci ñaari way dencante. Mm-hmm. wala mu jël ëmb foofu moom yaramam moom xale bi parewul yaramam parewul. ku koy def rek na nga xam li ngay li nga xam en âme ay conscience que ni xale bi parewul psychologiquement yaramam parewul. parewul physiquement waaw. waaw physiquement biologiquement psychologiquement dara parewul ci yaramam ah, d'accord euh, bokk yéen a ngi déglu seen émission parlons santé ak euh, suñu partenaire bi di ONG ak DEV tey ñuy waxtaane njeexitalu ëmb yu teel euh, ci l'école bi kon tàmbali nañ di expliquer yaramu xalel bi ni nga xamee ne si màggeegul léegi xale boobu nag bu ñu nee grossesse précoce tam am na ñaari mbir soit mooy ki ñu mayee ci bu amee 16 ans comme ni ko suñu yoonu réew waxee mu dem sëy ji bu fa ëmbee grossesse bu précoce la par contre ñi nga xamee ni sam dañu nekk ci société bi toll ci 12 ans 13 ans 14 ans kenn mayewu leen ça veut dire que sëyuñu mais peut-être gis nañ benn tonton boo xamee ne si nekk na ci koñ bi bu egg si ñoom bañ jëlee ci ëmb aussi dañ naan ëmb bu teel la wala. ayca foofu aussi ëmb bu teel la. Mhm. léegi nag ñiy contre souvent euh, sunu façon théorie yi naa la waaw yéen da di wax naa xale douze man gis naa xale bu am douze ans ëmb man gis naa xale bu am quinze ans ëmb man gis naa xale bu am dix-sept tonton saay-saay diw moo ko ëmbal ci koñ bi man gis naa nangam ak nangam mm-hmm. du tere ñu wax ñu wax ni ak fu mu ko mën a jëlee ci biir sëy feneen ci biir sëy du tere li ñuy wax ni baaxul ci moom mu bañ a nekk vérité du tee ëmb bu teel la. teel la waaw. xam nga. ka mu jëlee ko ci sëy wala mu ñàkk ko jëlee ci sëy teewul mën na jël ëmb. Mhm. sans pour loolu nag dañ koy xamal xale yi c'est important pour émission yu mel nii ni xale yi di ci bàyyi xel. xel mën nga ëmb sans nga am relation sexuelle directe li ñuy wax pénétration. Mhm. maanaam mën na bañ egg ci yow li ñuy wax pomme mu ëpp kese ba ku góor ki nga ko seqal mais àgg fenn fi. Mhm. xale bi mën na fa jël ëmb te sax jokkalante dëggantaan du ca am. moo tax ay xale bu leen di yee ci yenn projet yeeg yu mel noonu. ñu mhm. leen di wax naa ah, ah nu ñu la wax bul ànd ak xale bu góor parce xale yi léegi dañu naqaree conseil ci yenn yi waaye bul sori ak moom fenn fi fenn mhm. parce que mën nga jël ëmb te du am pénétration. Ah. jarul loolu jarul sax ñu ciy dugg ci ay polémique xam naa ñenn ñu ngi naan loolu mënul nekk aha mën na nekk. mën na nekk mën na nekk waaw ci beneen émission xëy na. danañ ci waxtaan gën ko yaatal message mën na ko gën a yaatal. Mhm. mais mën nga jël ëmb ci fomm mu ëpp rek. sans pour autant sa pénétration réelle am. ça veut dire que donc xale bu jigéen bi mën na ëmb te te sëyul donc ça veut pas dire que euh, yaramam pare na donc mën nga mën na mën na jël ëmb yaramam parewul. parewul ko même conséquence yi rek lay am ak ay morom yi nga xamante ne ci même âge bi li mu toll lañ toll woon ëmb. même conséquence yi. Mhm. dañ ñëw ci conséquence yi. Mhm. ça veut dire quoi ça veut dire que. Euh, dans la dans la dans la façon de comprendre ce, ce phénomène bu ñuy jël dañuy jël tout le temps l' intérêt supérieur de l' enfant. de l' enfant waaw muy maanaam intégrité physique am. Mm-hmm. ñu ci bàyyi xel et di wax ci ay contingence waaw sama tonton beeg non ki jëkkëram laag ki non non non ko forcer may yooyu yëpp ay ay équilibrage ay élucubration rek la mais li ci mën a am. Mm-hmm. mooy l' intérieur supérieur de l' mooy intégrité physique am te yaramam parewul ni mentalement. ni physiquement kon lu jar bàyyi xel la par rapport ak la compréhension de sa famille. d' accord waaw léegi nag comme déjà ñu bëri dinañ xam ni xale bi yaramam parewul mm-hmm. nii physiquement nii moralement et cetera mm-hmm. euh, lan moo tax nag nit ñi bari di maye seeni doom ci âge yu yi mm-hmm. parce que tam nekk na phénomène boo xamee ne si dafa bëri léegi surtout en en en banlieue et en zone rurale parce yenn saa yi dañuy wax zone rurale mais fekk na banlieue bi aussi parce que man ci banlieue bi laa dëkk ndax maa ngi dëkk Thiaré. Mhm. absolument en fait bari na mais gëstu yi wane na ni c'est moins qu'auparavant maanaam li mu li mu ni ko systématiser woon suñu société. non def waa ah, léegi def nañ ay jéego. mais du tee ba tey mi ngi fi. ba ba ak bari sax ak bari. <laughs> def nañ ci gaa ay jéego parce que ni mu meloon. ak ni ko daan defee au vieux au sud de tout le monde léegi am ñoo xam ne dañuy nëbbutu soog ko def. bari waaw bari na naam. Mhm. parce que boo ko waxul bari na rek wax la bari na lu bari la mhm. waaye melatul comme na mu meloon avant avant li ñu ci dimbali nag leen lu bari lenn rek la souvent da ngay même dans en zone sax da ngay gis nii yenn enseignants yi bu ñu xamee ne élève sàngam nangatul ñoom parce que ko may jëkkër wala dañ ko bëgg a may jëkkër mën na saisir directement le sous préfet wala le préfet waaw ñoo convoqué ay parents ñu leen on vous a à l'œil mhm. ça fait reculer des des gens c'est vrai benn dans le Saloum de profondeurs tax nañu bëree bëri lâché parce que il y a une grande ONG qui est là-bas moom tam di def comme di ngeen di def xeex combat bu mag muy sama ñoom Binta Sarr waaw mbokk aprofes yi Binta Sarr li yàlla na yàlla xare ko àjjana def nañ ci lu lu am solo liggéey bu am solo liggéey naa ak ñoom mhm. yooyu mel noonu moo tax nit ñi reculer mais li ci mën a am ci cause yi maintenant souvent mhm. boo gisee ñeneen ñi seelamay seen la deux deux principalement mooy bi ci jëkk mooy nit ñu souvent euh, dañuy daw gàcce ci seen doom bu jigéen. waaw ah, dañ sunu société yi dañu wax bindoon noo xamante ni euh, sa doom dafa ëmb te amul jëkkër dafa xaw a nekk defet ci parent. Ah. dafa nekk defet ci ay mbokkam. Mm. léegi nag pour ne pas avoir à avoir à subir humiliation boobu maanaam gàcce boobu. gàcce boobu parents yi ba dañuy préféré teel a may seen doom ca farata si yàlla sunu Muhammad ak wala boog dina bu gëm pour am li ñuy wax. Euh, liberté de conscience mm-hmm. que ni seen doom ñoom. yar nañ ko fañ ko waroon a yare joxe nañ ko fañ ko waroon a joxe dégagé nañ seen responsabilité mhm. loolu mooy première première première euh, peut-être cause fondamentale benn cause bi waaw mais deuxième bi aussi dañ ciy bàyyi xel mooy le fait que nit ñi souvent dañuy lii li ñuy wax savoir et pauvreté dañuy jël souvent euh, xam-xam lëkkale ko ak euh, mën-mën ak am-amu ëllëg souvent dañuy jàpp ni jigéen xaaruñu ci moom mu am alal mën a yor ay waajuram xaaruñu ci moom mu créer ay entreprise euh, xaaruñu ci moom pour loolu ñu pour yenn culture yi. waaw yëpp góor la. góor la waaw ñoom ci góor ñi lañ ko gisee daal gisee. te olof yi dañuy olof wax na euh, benn bañ ci gémmiñ bu weexul ñu laaj borom c'est-à-dire parce que dañ ko yaakaaru ci moom rek. Mm-hmm. alors que bu doon benn bu góor la bu doon góor la da nga gis bu jëree ñu jaay nag bu jëree ñu jaay tool gis naa ñu mu jaral ñu jaay terrain. ngir seen doom jàngi France. jàng mais parce que dañ ko yaakaari ci culturellement dañ ko yaakaari góor. mais lu fekk na ëllëg war na mën a yor ay wayjuram ak yooyu. mais fonder une famille mm-hmm. xam nga fonder un foyer yor ay wayjuram ëllëg. jigéen day sëy dafay sëy comme dafay dem donc wékkuñu yaakaar bi ci moom. moom coono bi du ci fekk donc du leen ci fekk. looloo waral aussi comme deuxième cause fondamentale bi tax jigéen ñi souvent ñu leen di teel may ci culturellement. ndax ñu ëllëg ñu mën a gérer seen foyer à part. aussi may góor ñu aussi chance ñu mën a assumer pleinement seen rôle de futur war a mën ñu war a téye seen kër. wala téye seen parent dañ ko yaakaarul ci jigéen rek bu ñu ko yaakaaroon ci jigéen buñ duñ di sonn ci moom comme ñun doon sonne ci góor la preuve mhm. tey ji jamono jii nii ñi yàlla na taw ñu am jigéen rek pen bi nit ñi di am ci seen doom yu góor ngir ñu jàng tekki même pen yi ñuy am ci ñoom mhm. te on en voit des exemples tous les jours mhm. loolu mooy loolu mooy un peu l' explication bi waral souvent nit ñi di teel a maye seen doom ba ñu ci teel a ñu ci jël souvent ay ëmb yu ëmb yu teel voilà Euh, par contre am na beneen phénomène boo xamee si gis nañ ko aussi Saalum yenn ñenn ñi dañ koy maye parce que tout simplement dafa am euh, pécunier boo xamee ne si itam dina leen ko jural. waaw am na si ethnie yoo xamee leen di may dañuy ñëw indi la ñaari nag yëkk ak wëllu. daf ciy am qui devient un de la famille bi nga xamee ne si fa lañ jëlee xale bi te loolu day am peut-être yokkute boo xamee ne si daf leen koy jural tam. bon na am multitude de causes. de causes souvent bu ñuy analyser on analyse ce qu'on appelle les tendances lourdes. maanaam li nga xam te ñoo ci gën a fës. Mm-hmm. mais benn benn benn fenn mën na am x raison. raison na am des fois des ay pour créer des des ententes famille entente mm-hmm. lëkkale ay famille famille waaw ay liens familiaux. man nga koy def des fois ngir sama xeet bi ma dugg ci. telle famille parce que famille bu prestigieuse la. Mhm. famille Serigne la mhm. famille Nangam la famille Richard la famille Nangam Nangam loolu lay am. Mhm. mais donc y a une multitude de raisons. de raisons quand on analyse souvent da ngay jël li ñuy wax les tendances lourdes. lourdes li ëpp ci li am li ëpp ci. li gën a fës daal. voilà mais day am une multitude de raisons day am lu dul jeex comme comme raison principale muy mën a expliquer un peu ces phénomènes. d'accord euh, léegi nag ñu dikk ci conséquences yi parce que bëri na déjà ñu dikk ci conséquence bi déjà rek ci xale bi. avant ñuy egg sax ci école bi parce que déjà euh, bu ñu nee école bi mooy ñi nga xam ne si may nañ ñu fekk leen ñi ngi jàng wala dara wala ñi ngi am grossesse ci biir école bi école bi sax sori na mais ñu commencé ci conséquence su xaleel bi nga xamee ne si rek teel na ëmb avant ñu yegg ci. léegi conséquence foofu dañ koy analyser ñaari piste yu bokkul. ñoom itam ñaar ñaari piste yu bokkul. Mm-hmm. dafa am ñuy wax grossesse euh, non désirée. ak grossesse précoce du forcément la même chose une grossesse mën na précoce mais désirée maanaam ki ki ñu may jëkkër mu à quinze ans seize ans mm-hmm. souvent dañuy xaar ci moom mu ëmb ah. grossesse ba précoce na mm-hmm. et c'est et c'est désiré maanaam du faute bu penalty yi ñi nga xale yi waxee. mais mën na nekk tam non désiré également. parce que xale bi nga xamee ne si maye nga ko aussi te muy jàng. Mm-hmm. te nga xam ne moom bëggoon na par exemple am possibilité yeggalee jàngam. et cetera ah là c'est autre chose. yenn saa yi grossesse dikk bett ko bett. boo xam ne là c'est autre chose parce que conséquence bi yam bu ma waxee euh, bu ñu doon désiré. c'est mm-hmm. culturellement pas individuellement. waaw culturellement laay wax. Mm-hmm. xale bi ëmb ñu maye ko à 15 ans mu pour nit ñi du c'est pas un drame. non c'est pas un drame dañ koy xaar d'ailleurs donc c'est grossesse précoce la. d'ailleurs contraire bi sax mooy xaw a jaaxal nit ñi. très bien. <laughs> contraire tu as tout <laughs> bi sax mooy mooy kii nit ñi boobu ay conséquences am du yem ak une grossesse boo xamante ni euh, dafa précoce et non désirée. c'est encore pire. pire parce que bien souvent. les conséquence biologiques physiques rek lay gere waaw mais conséquences morales yi ak kii yi na ci bañ a mënoo ko gérer lay de mu euh, que la ñu koy waxee jugement ñeneen. ñeneen ñi waaw t'as pas que ku laal nit ñi laal ko. dana ah mi ngi ci mi ngi ci sëy. waaw bàyyi leen jàmbur mi ngi ci buumu sëy bàyyi leen jàmbur. waaw day gérer foyer. waaw bëgg na jëkkëram jëkkëram bëgg na ko beneen débat la. Mhm. fii nag lay gën a métti ci nga xamante ni non seulement dafa précoce nekkuñ ci buumu sëy. Mhm. ñoom ñaar li ñu bokk nag mooy def des conséquences physiques. physique lañ bokk waaw mais beneen conséquence bi moom. bee moo gën a accentué ci conséquences physiques physique yi pour les deux ñoom ñaar moo leen concerné pour les mm-hmm. deux. Mm-hmm. conséquence physique teel a teel a teel a ëmb li li ciy indi comme conséquence bokk na comme yeneen ni woon naan say cër pareegul. pareegul bokk na ci euh, euh, ëmb bu bu bu ñuy ëmb difficilement mën na indi li ñuy wax avortement parce que yaramam parewul. parewul mën na indi. Euh, même bu ko ëmbee wasin bu metti te wasin bu metti mooy mooy mooy mën ko césarienne parce que yaramam parewul physiquement pour pour accoucher à à voix mm-hmm. mën na indi euh, euh, fistule xaw ma ndax miin nga baat bi si ñoo ko auditeur rek moom mooy ëmb bu diis ba metti ba voilà bi muy am doom mbëkk bi xale bi mbëkk mm-hmm. buntu kanamu yaay ji pour mën a génn metti yéex yàgga ba yaram bi mënatul résister am mu am fu mu fàccee ba lëkkalee euh, fi muy sawee ak fi muy fi muy demee gaanuwaay mhm. loolu yooyu aussi grossesse précoce nag indi moo waral mu ngi gën a bëri ci yenn seetlu na ni fistule yi par exemple obstétricale yi mi ngi gën a bëri ci zone yi nga xamante ni fa ñu gën a constater ci lim euh, les grossesses précoces na ci parents yi bàyyi xel mhm. bon conséquence ultime bi ñu bañ a tudd aussi mooy mën a rey xale bi parce que lu parewul parewul rek. parewul boo ko forcé aussi mën na yóbbu bakkanam. Ah, boo seetaatee aussi également bokk na sax zone yi nga xam ne si fa la mariage précoce yi am ak grossesse précoce yi fa la mortalité maternelle fa la mortalité maternelle ak infanto juvénile constat bi. Mhm. loolu aussi pare nañ ciy bàyyi xel lu jar bàyyi xel la. Mhm. ak yeneen yoo xam ne peut-être sax c'est pas peut-être un débat ah, de de de médecine mais pour simplifier ko rek dañu jàpp ne yaramam parewul donc lu ne mën na ko ci fekk. ba ci dee te kenn bëgg ko. na jàpp ne aussi li li wane la preuve mooy li ëpp ci fi muy am fa la fa la décès marathon yi gën a bëri. bëri fa la fistule yi gën a bëri. gën a bëri et cetera yeneen jàngoro yi sax. gën a bëri. Mhm. donc loolu si ñoom ñaar ñoo ko bokk. Mhm. les deux ki ñu mayee ak ki ñu mayewul. waaw ki ñu mayee ak ki ñu mayewul yëpp ñoo bokk loolu les conséquences maintenant culturelles euh, sociales mi gën a méttee maintenant ki ñu. mayewul ki ki ëmb mu précoce te amul jëkkër. te amul jëkkër. Mhm. yooyu moom. ba ca école ba da koy topp ba ca école ba sax da koy topp. Mhm. loolu la ñuy wax na da ngay am da ngay perdre l'estime. ci kër gi lay commencer. ci ah. mbedd mi ah. ba ca école ba. comme gàcc nga pour tes parents. Mhm. da ngay daal di nekk gàcce pour sa bopp. parce que pour sa kenn ñaanul yàlla wala kenn désirewul en tout cas euh, sa defetu parent jugee ci yow. kenn kenn kenn ñaanul yàlla ñeneen ñu yëpp say parents. jaar rek ci yow. waaw maanaam sa gàcce waay jur. ñaanoo yàlla mu tàmbale si loolu mooy loolu mooy indi manque loolu mooy indi finalement manque d'estime de soi. de soi mm. waaw parce que dootoo naw sa bopp. na waaw doo naw sa bopp dootoo wóolu sa parce que nit ñi nawatuñ la. Mm. naw ñu say wéjjur ndax yow. da nga daal di yaakaar ne yow yaay la fautive à cent pour cent lii lépp ko indi. Mm. loolu ci conséquences yi la sur le social. y a les de valeur. nit ñi souvent dañu diggante ndax. yow yow dañ laa drogué ndax yow dañ la violé ndax yow euh, pour x x raison yoo xamante ni ça ne vous est pas directement imputable nu mm-hmm. euh, ñu di liggéeyante loolu dafa ëmb taxawaalu rek xale yi dañuy taxawaalu. taxawaalu waaw. ñi la xamul ñoo naa kii bu ko lu mel ni dallu woon. mu bett parce que dafa wow bët. Mm-hmm. chacun profite souvent la société des fois dañuy xaw a méchant nag ma yàlla nañu baal ci kàddu yi. non mais vérité la dañuy xaw a méchant trop trop trop trop parce que dañu gaaw ak ñun juger. Uh-huh. on a tendance à juger trop vite les autres. waaw ah. duñu jéem liggéeyante moom les causes fondamentales non kay te xamoo sax nu mu la mm. la ci def. comme comme part de responsabilité ou pas on a tendance à mm. souvent après la comprendre. di jéggalu fekk c'est trop tard le mal a déjà fait parce que euh, blessure làmmiñ mhm. souvent day day day garder des séquelles pendant longtemps yam mhm. la blessure paaka wala leneen nit ki boo ko jëmee ci làmmiñ mhm. souvent da koy garder dans son cœur pendant longtemps malheureusement nag nit ki nag bu ñu ko jugé culturellement de façon défavorable de ba mu ñàkk estime de soi am euh, dootul amati confiance en elle te pour nga pour nga def yenn percées yi sa àddina mhm. ak la vie mu mettee boo amul confiance en toi doo ko mën parce que tout le temps da ngay am tendance yow daal nitu defet nga ah. defet nga bi amee quinze ans sama jàng yàqu na ah. defet naa samay wéyjur su mhm. nekkaat tas na mhm. kon jaratul may sonn ci A wala xam naa aussi rek defet lay nekk ñuy wax manque de confiance en soi dafay dafay dafay dafay di bokkoo ci ci maanaam wóolootoo sa bopp daal maanaam faaleetoo parce que parce que da nga koy gëm parce que euh, te buñ lay parce que buñ lay wax yenn yi à force di ko répété mm-hmm. da ngay dem da koy gëm. y a un penseur allemand temps Hitler bu daan bu daan wax naa euh, Hitler personne nit ñi daal ba lu la neex wax moom Goebbels la tuddoon mooy c'était le chargé de la propagande. Mm-hmm. il suffit boo bëggee gëm mënoo wax naa boo bëggee gëm loolu nit ñi dara. il suffit de le faire répéter ça pendant longtemps ils finiront par le croire même si c'est des mensonges maanaam mhm. nit ki boo ko bëggee mu gëmloo yenn yi teg ko wax rek bu yàggee dafay gëm su lay wax sa sonn ci yow rek waaye xam naa doo topp ci jàng sa bopp bi dafa nax yow dangaa nangam nangam il va finir par le croire mhm. donc dafay finalement dafay manquer volonté ci jàng parce que en croyant que moom day sonn nii rek waaye du ci tekki loolu la aussi buñ koy wax aussi nit. parce que da nga ëmb loolu tax nag yenn saa yi ñuy loué intelligence suñu parents ndar yi. Mhm. xale bu xelam neexul sax dañ naan xale bi ni mu muuse. Mhm. ñoom loolu la ñuy wax. Mhm. nag boo ko nee nag yow finalement da ngaa bon. doo ko boo ko nee doo mos a tekki nee xale doo ko ne da nga dof. ñoom ah. dañuy taxaw daal ne xale bi ni mu muuse. yow doo def nangam ak nangam mais au fur et à mesure xale bi day. jàpp ne waaw dafay créer confiance. confiance en gëm sax quoi. da koy gëm moom ku muuse donc warul warul lajj. lajj. warul laaj effectivement donc dafay dafay développer en lui des compétences finalement. waaw donc am na ñoo xamee ne seen yar vraiment dañ ciy développer yenn intelligence yi ba nga xam ne day day ah, mooy lu gën a yombal seen doom. arrivé ci lenn li loolu ci la bokk malheureusement nag nos sociétés ont tendance des fois dañuy dur. ci ñi def déviance waaw ñoo ñi def déviance mhm. maanaam yoon yi société bi tànn yoon yi mooy yooni jaarukaay jaarukaay ku ci jaarul souvent li ñu duñ ci dem ak yow ak ay gants dañuy xaw a soxor trop duñu xalaat sax ne da peut-être da nga parce que xam mhm. nga njuumte mhm. bokkul ak loo xamee ne si nit ki daf ko def sciemment njuumte mooy am deuxième chance njuumte dañ la war a may deuxième ah, chance boo xamee ni mën nga mën nga mën nga malheureusement nag suñu société dañuy xaw a soxor ci parce que ah, bañ ciy soxor parce que souvent c'est des phénomènes tabous liñ ci wax benn yoon arrêté. arrêté parce que bu ñu ñëwoon di wax chaque jour sa papa bu la ci wax dala ci wax benn yoon arrêté. Mm-hmm. te des fois blessant say mbokk bu lañ ci wax dañ lay wax benn yoon bu saf sap. rek noppi noppi. waaw des alors alors que ki ngay wax souvent dafay continuer. def def li olof yi di wax multiplier par zéro. voilà maanaam génn ci sa lépp maandu ci. alors que boo ko waxee nit ki pare nga dafay continuer di raisonner ci nopp bi. ci nopp bi pendant longtemps. parce que bu la xoolee rek bat boobu lay gis. gisaat sama papa ne damaa bon. samay nen dama bon sax alors que loo gis rek on est souvent euh, nit ki milieu bi mu nekk souvent moo koy déterminé. wala mhm. sociologie souvent et c'est vrai. Mhm. maanaam xale bi ëmb na mais pourquoi du ñu demande ñun la société. lan mooy suñu part de responsabilité responsabilité waaw comment en est-on arrivé ah. jaar ba egg xale bi xale bi moomul boppam. waaw ëmbalul mhm. xale bi xëj na est-ce que daan nañ ko interdire yenn choses yi est-ce qu'il y avait des règles dans la maison est que amoon na yenn condition yi. est-ce que nangam est-ce que daan na reer bu suur est-ce que daan na naan lu màndi est-ce que daan na mhm. xale bi est-ce que reer guddi ma ne déedéet waaye kon xam fu muy liggantee reer xawuma ko vraiment qui est responsable ñun ñoo ñu sommes tous responsables donc finalement c'est partagé malheureusement nit ñi souvent duñu jël cette peine de regarder un peu et de situer situer assez les mhm. et c'est comme ça nag ci kër gi wala ci école bi en cas de grossesse précoce mhm. comme ça parce que généralement nit ki lu mel noonu da ngay am un peu de recul. Mhm. pour xool <laughs> yan condition ñoo indi lii. Mhm. mais souvent nit ñi recul boobu yëpp duñ ko am. dans l'immédiat moom kenn ku ci nekk baat bu mu wax bu gën a ñaaw lay daal di wax mhm. am na nag parents yoo xam ne sax duñ ci yegg ci baat yooyu moom. waaw dañ koy yëg egg ci kër gi ni la abal ma sama kër. déjà sans pour autant souvent que ñoom ñu xool euh, lan mooy seen part de responsabilité ci biir. xam nga dañuy wax naa yar du war a wax. ak jëf la xale pour nga yar ko da ngay wax on fixe des règles de morale. mais mm-hmm. ngay jëf pour mu am lu minimum ñaari bu ci sooxee rek. indi problème. da ngay fexe ba indi ay barrières yoo xam ne tam kenn du ko ah, franchir ci biir kër gi. Mm-hmm. boo waxee naa oui oui waaw non non nit ki mën na ñàkk ba pare du ko teel garde ngorom mais c' est pas une règle générale. Mm-hmm. nit ñi yàlla da leen bind uutale leen. ñu wax dëgg degré de maîtrise de soi. ah nit ñi yemewuñu ko. ñaari nit mënoon bokk ndey ak baay. Mhm. am même type d'éducation. Mhm. am même moyen. Mhm. ah. matériel. Mm-hmm. ñuy jàng kii mën a jàng ki du mën a jàng. kii am des règles d'éthique di ko suivre kii am amul yooyu yooyu règle te pourtant ñooy même parents yi leen yar. Mm-hmm. donc nit ñi. loolu lañ naan bokk ndey ak baay mi ngi mel ni bokk fanaan ci néeg. très bien ku xëy dem sa yoon. ni mm-hmm. baaraam yi uutee. ci tool noonu la nit ñi uutee donc nit ki ne ba dañuy wax naan bu doon bu ñuy sàmm bu doon yet bu doon dañuy sàmm nit ak yet. ku nekk ak yetam. c'est-à-dire bu buñ bul wax ni non non kii moom ak rakkam bu jigéen ñoo nekk ci kër gi. moom moo bon bonam rek. déedéet parce que jaar jaaru nit ñi li ñuy wax trajectoire de vie nit ñi. Mm-hmm. mooy déterminer souvent seen niveau de conscience. conscience. parce que parce que koy bokk lal bi ñu fanaan kat déedéet xëy na dund na ci vie lu ko may mu am yenn réaction ak yenn comportement yi kii aussi kazaalika. Mm-hmm. donc boo bëggee sa doom souvent mën a mucc ci yenn yi da ngay fexe ba ñaar yi wax sànq ban bu ci sooxee. Mm-hmm. ndax yor nga ko. matériellement ndax matériel nga yenn yi mhm. ndax aussi en termes de d'éducation et de transmission de valeur morale éthique est-ce que aussi matériel nga ko mhm. waaye kër goo xam te ni xëy na papa teewul yaay teewul min daan mais teew la mu mën rek lay def mhm. souvent la tax man souvent on il faut se poser la question à qui la faute ah, quelle est sama sama part de responsabilité ci mbir mi suñ ko posé wul rek souvent dañuy soxor ci jugement yi ci xale bi dafa aussi nga sa ku soxal ci si sa bopp. Mm-hmm. waaw man man man lii moom ma ma dee moom ma gën ma fekke ko. Mm-hmm. te loolu souvent day arrivé nga gis ko parent bu xaru parce que pour moom doom dafa teg gàcce ou bien malheureusement en cas de grossesse précoce malheureusement ci conséquence la xale bi mën na xaru. waaw parce que dina dégg lu ko naqari ah. dégg lu ko naqari ba finalement day fen dernier recours bi rek. Mm-hmm. mooy mu dem xaru ji ñàkk bakkanam nag souvent ACDEV a mis en place. des ce qu'on appelle nous des SCA espace conseil ado jeune dañ jàpp ne xale yi souvent na fa ñuy toll duñu gis papa juñ waxal wala duñ ko mën a wax ak moom am na benn góor boo xamee ne bu baax bu ñu dëkkal nee na ma jamono ji ñu toll ma ne am ah, mu ne ma ñu ci bari mu ne du ma ne ñëpp de ma ne am ma ñu ci bari yaratuñ dañuy yefal mhm. nee ñenn ñi dañuy yefal ñenn ñi nag ma ne am ah, mu ne ma yaruñu yefaluñu ma tekki ne actuellement Sénégal. Mm-hmm. ñu bëri dañuy jiwaat lay éducation ak instruction. Ah. éducation. Mm-hmm. ak instruction école instruction lay gën a def que éducation. que éducation. même si on parle d' éducation nationale. même si on parle du ministère de l' ah, instruction moo fa ëpp. parce que dañ lay def ci yow ay xam-xam. Mm-hmm. direct ngir ëllëg nga mën a doon citoyen citoyen bu amal njëriñ dëkkam. dëkkam. waaye comme. pourtant nag les changé parce que à l' école amoon na éducation civique. éducation civique amoon na éducation morale amoon na économie familiale yoo xamee ne si daf doon préparer. xaleel bi muy kii mais yooyu yëpp sooxe maintenant ak suñu éducation. yëpp li ko sooxee lenn rek la. Mhm. on n'a pas euh, l'école li mu bëgg am na day am ba léegi ah mais dafa am fu mu yem. parce que l'école dafay dafay ñuy wax dafay socialiser l'enfant dafay bëgg ñu am un modèle de sénégalais. Mhm. alors que Sénégal daa am bëri ay modèles en fait. il a la culture tukulaar pulaar il y a la culture wolof il a la culture séeréer te l'école warul privilégié benn ci culture yooyu dafay xëy dafay xaw a mën na xel tuuti rek créer un Sénégal ñuy wax un homo sénégalensis bu xaw a euh, répondre un peu à tous ces critères Critère. sans pour autant ressembler parfaitement à l'un d'entre eux euh. loolu waral loolu mooy limiter école en termes d'éducation d'éducation tax ma la sànq mhm. à l'école y a beaucoup plus l'instruction que l'éducation cest dire ci kër yi ci kër boo bëggee sa doom bañ a tomb ci li ñuy wax les grossesses précoces suñu thème tey ci nii privilégié beaucoup plus euh, liggéeyu ci liggéey boobu ci kër gi qu'à l'école mm-hmm. l'école leneen leneen la mu ngi bay waaram avec ses limites mm-hmm. parent yi ci kër gi ñoo war a gën a mën a travailler pour éviter ces travers de la vie des enfants mm-hmm. ëmb bu ëmb bu teel ëmb bu kenn bëggul loolu moom lu fondamental lu parents yi war a xam la sa doom doo ko bàyyi école rek def nga sa warikat jeex na li ëpp moo gën a metti te yow la war. en tant que yow la war mm-hmm. euh, léegi nag euh, suñu toogee ba loolu xas na am xam nga yenn saa yi nit ñi dañuy wax naan euh, bu ndox tuuroo an bàq des ñu ni déedéet rootiwaat moo fay sës parce que bàq bi généralement du la jariñ dara. Mm-hmm. léegi nag malgré yëpp loo xamee ni si def nañ ko nga def ko mais teewul xale bi tey déjà loolu nga doon bañ yegg na si. njeexital bi si kër yi pratiquement wax nañ ko souvent rejet bi nga xam ne moom la société bi di amal kàddu yu bon yi nga xam ne moom lañ lay wax et cetera mais conséquences yi dëgg dëgg dëgg ci biir école bi lan la après. Mm-hmm. xam nga xale yi bu ñu ëmbee bokk na aussi liy indi cause yi euh, dem bi ñu dem école loolu tamit koy xool si waxuñu nag école mooy xat xale yi déedéet cause yi dafa bari. Mm-hmm. am na xale yoo xam ne bu nekk ci kër gi dañuy am nu ñu mel yaru mais bu ñu génnee xaw ma ne ko fireeku parce que xëy na tëj bi leen doon tëj moo ëpp dañuy éco ci biti la ñuy noyyee mm-hmm. loolu nag boo ko boolee ak euh, le phénomène de l' adolescence ak li muy àndal bëgg wane wu bëgg affirmé wu bëgg ak li ñuy wax le mimétisme aveugle mm-hmm. xale yi ah, bokk na ci critère ak li ñuy wax li critère adolescence da ngay bëgg di nduróole ak say say morom lu ñu def da nga koy jéem a def lu ñu sol da nga koy jéem ah li mooy mode bi moo xew mm-hmm. bu kenn solee mini ñëpp bëgg a sol mini mm-hmm. bu kenn solee pantalon ñu ne ko da ngaa defet ñëpp bëgg a sol pantalon li moo xew parents dañuy am problème pour canaliser seen doom parce que dañuy bëgg ressembler ak à l'autre dañuy am problème maintenant le problème mooy bu fekkente ni xale bi dem na école xëy na ba am fa ay anti valeur wala la nga ko defoon fii cëslaay bi ci maanaam fondement yi nga joxoon ci kër gi dëgërul mm-hmm. su génnee dafay xaw a mel ni nga xob bu wow day neex këf day neex upp day neex ñëw yóbbaale ko mu ngi noonu souvent nag école comme dafa nekk espace de socialisation dañ fay daje ak seen yeneen i moroom donc contact physique bi dafay am et on trouve cela normal alors ci kër gi da nga naan eh, góor ñi toog leen ci góor ñi jigéen ñi toog leen ci jigéen ñi alors que école ñëwul pour école milieu de socialisation la. Mhm. on apprend à l'enfant à être à vivre en société. en dans le respect de certaines règles de certaines règles éthiques morales et cetera. Mhm. donc la leen fay dajale en fait waruñu xeex waruñu xuloo waruñu nàngam. Mhm. léegi nag conditions yi mooy tax souvent xale yi mën a am yenn ouverture yi en matière de sexualité donc bu la parewul moralement. boo ñëwee xëy na mën nga glisser ci yooyu travers. Mm-hmm. maintenant pour c'est pour juste pour anticiper sur la euh, question par rapport à les conséquences bi mën a dal xale bu jigéen bu ko dalee ci à l'école. Mm-hmm. bu njëkkoon la première chose qu'on fait c'est d'abord de euh, renvoyer l'enfant. waaw waaw souvent dañ koy dàq. mais nag léegi ndax parents yi xam ni y a une circulaire ki qui est sortie a quelques années bi wax ni xale bu ëmbee. kenn amatul droit dàq ko à l'école seulement dañ koy wax na arrêté at moomu toog seen kër ba am doom l'année suivante am na loo dem réinscrire konte jàngam loolu ñu bëri dañ koy fàtte da gis xale bu am doom daakis que pour ñoom njàngam yàqu na addinaam jeex na déedéet mën na réinscrire dem jàngiwaat boo gisee duñ ko bàyyi duñ ko bàyyi à l'école pratiquement c'est des choses hein bi njëkk moom mooy ni yaramam du ko may mhm. parce que boo ambee teel yaram tout le temps tu es malade. Mm-hmm. et cetera bon. surtout ak âge bi nga ko defee tout le temps yaa ngi feebar. tout le temps boo ñëwee yaa ngi tëdd yaa ngi. voilà muy noonu du suivre boo bëggee sax du suivre. Mm-hmm. l' autre moom mooy rek ni ça peut créer une mauvaise influence sur les autres enfants. donc dañ koy nëbb ay mm-hmm. moromam. moromam moo tax hmm? souvent la ñuy génne école. la nga dem toog mu créer une émulation maanaam mu créer. Euh, une vague. vague toppandoo kenn ku ci nekk ëmb na diw ëmb na defuñu ko dara donc pourquoi pas man mhm. tax mais jàpp ni. te même ci euh, ci kër gi aussi parents yi loolu la ñuy wax. parce que bu ñu la mhm. waxul dara te nga am ay petite sœur. dañuy mhm. yaakaar ne bu ñu jógee rek mën nañ jaar ci say tànk. am si ñoo xam ne sax génn kër gi. waaw yaa xam xam nga waxoon la ko sànq ma ne am na ñoo xamee ne si dañ la naan ay ca abal ma sama kër. voilà pensant que da nga kër bàjjen euh, comme ça say rak yu jigéen wala say ma ko jigéen di ay ñun sa mën na sama parent def dañ ko génn kër gi daatu génn kër gi ah. ça va faire tilti mën na mën a apparer ah. ay moroom ñeneen ñi ragal loo ah. voilà mm-hmm. léegi maintenant ci côté autre comme maintenant ci loolu ci explication la par rapport ak école maintenant ci conséquences yi à l'école ginnaaw renvoi bi mm-hmm. euh, souvent aussi man na mën na indi aussi euh, euh, beneen beneen problème au niveau de l'école parce que xale yi bu ñu ëmbee teel ci école bu ñu ko ëmbee dañ koy fàtte souvent xale dina am dina ëmb du ko nëbb ses parents souvent day dem ba blessé wu école ñu koy soog a xam loolu conséquence bi mën na ko sax gaañ gravement. Mm-hmm. am ñoo xam dañuy am lu ñuy wax déni déni de grossesse day am day dal day dal sax mag nit mën nga ëmb te xamoo ko yàlla mën na laa nattu. nga am déni de grossesse parce que comme yow xamuloo njortu. foogoo mën nga ëmb te foogoo ko. mais par contre am na ñoo xamee ni si xam nañ ñu ëmb nañ. mais mhm. nanguwuñ ko. waaw mhm. ah, loolu aussi am na. <laughs> boo ko xasee ba boobu déni sa moo gën a bon dañuy xam ba pare mais duñ ko sax nangu. man nag déni bi may wax. Mhm. mooy bi nga ko bi nga ko yëgul foogoo ko njortoo ko. njortoo ko sa yaram du réagir comme ni mu doon réagir kenn ku ko xam. nangu ko. yaramu ki am déni de bi may wax nii mooy mooy mooy gën a yéex a wane ay signes grossesse. xale boobu aussi mën na dem école éducation physique nangam ñu yàq ko ci biir ñu doo ko ci biir mu gaañu gravement ça peut même attenter à sa vie loolu nit ñi ko xam loolu aussi ci ci conséquence wu euh, conséquence wu. Euh, grossesse précoce yi à l'école mais aussi bokk na ci wàññi niveau d'école bi niveau niveau de de l'inscription à l'école bu fekkente ni. Euh, xale boo gisaatee taux de déperdition scolaire yu am solo yépp dans certaines localités. borom dafa fekk mu ëmb après. arrêté te bu toogee une année rek da ngay gis mu tayal carrément. Mm-hmm. beneen conséquence. Mm-hmm. mooy les filles vont sortir de plus en plus des rangs des classes te pourtant xale yu jigéen yi normalement euh, boo gisee CFA e bi par exemple. Mm-hmm. elle constitue cinquante quatre pour cent. pourquoi bu ñu demee ba ñu àgg troisième ñu rës ba góor ñu ëpp leen. waaw de cinquante cinquante pour cent. c'est parce que li dal li gàllankoor xale yu jigéen ñi. non seulement dañu nekk ay cinquante quatre pour cent sax mais boo seetaatee <laughs> elles font partie des plus intelligentes. noonu la résultat yi loolu lay wane. wane tout le temps. loolu lay wane. Mm-hmm. mais pourquoi entre maintenant sixième secondaire le collège. ak. Euh, la classe de troisième góor ñi bu ñu ak troisième souvent dañuy àgg plus de cinquante pour cent te pourtant à cinquante quatre pour cent. loolu lañ mm-hmm. jigéen ñi dominé woon bi ñu ça veut dire que diggante sixième ak troisième am na fa ay gàllankoor. gàllankoor yi bokk na ci aussi li ñu waxtaanee. li ñu waxtaanee waaw kon ni ci ñëpp bàyyi xel. Mhm. bokk na ci ëmb yi teel yi bokk na ci daw génn parce que ëmb nga déjà bëggatoo jàng nit ñi la gis ak yooyu. waaw mën na mën na indi aussi gàllankoor ba yàq jigéen ñu bëri seen jàng boole mën naa bu ñu waxee ëmb dañ ci daxañal ci biir teel a suñu doom yi avant la avant lage requis mhm. et cetera et on et les faire sortir de l'école conséquences ci école yi la aussi. nañ ciy mhm. bàyyi xel ça veut le de des grossesses préscolaires suñu classe yi nañu xam ne ñu ngi néewal doole benn pàcc ci askan bi te ci lañ bokk nag muy jigéen ñi. ah dëgg ci lañ bokk de. malheureusement. Mhm. booy dafa am yoo xam ne boo koy def dafa wax kenn sa bopp nga koy def. parce que koo xam ne mooy yow yaay moom naa la société ñun la. Mhm. soo néewalee doole benn pàcc ci askan bi rek. Mhm. néewaloo leen ñoom en tant que individualité mais yaa ngi néewal doole. sa askan wi c'est vrai am nañu naa am na ñuy wax naa ba ma waxee ban jeunesse nga am je te dirai quel peuple tu seras. tu seras ngay am ëllëg. voilà mm-hmm. ça veut dire que soo néewalee kon ma waxaat ka yi leen pacc ci askan bi mm-hmm. parce que jigéen lan parce que dañu bëggoon jàng waaye noonu toog da leen a dal. Mm-hmm. parce que dañ leen a jugé de façon très défavorable parce que dañ leen parce que dañ leen def loo koy kenn ëllëg li nga waroon xaar ci sa askan. ñu am ko ci yenn taxawaay góor ak jigéen néew nga doole lu toll lu ñu toll sa askan. moo tax état bi dafa war a bàyyi xel loolu tellement ci ci ci ay programme mm-hmm. pour may teg ay mécanisme mm-hmm. yu ñuy dooleel xale yu jigéen yi nga xamante ni aar leen surtout dañu ëmb. Mm-hmm. en pleine anne scolaire dañu am jëkkër wala am jëkkër. jarul nga daan xaarandi bu demee on peut on peut penser dans les académies à des systèmes de classe adaptés à cette cible. comme ça duñu perd un an de façon entière on c'est des possibilités war nañu am aussi ay ay ay programme yoo xamante ne ci école yi dafay gën a leeral ci bopp xale yi conséquence grossesse précoce yi précoce mais dafa mel ni dafa war sooxe ci suñu système scolaire la preuve éducation à la vie familiale yi ngay wax léegi nii mm-hmm. c'est facultatif maanaam du ku mu neex rek. du du maanaam ku mu neex. def ku mu neex nga def def leneen. effectivement alors que. dañ naan matière la boo xam ne c'est une matière facultative. alors que fan koy defee. souvent société sax jigéen ñi rek ñoo ko daan tànn. d'habitude waaw parce que ñoo ko doon def mais. alors que. Mhm. dafa war a intéresser à la fois góor ñi. ak jigéen ñi lool benn piste la de solution. Mhm. xale yi buñ tolloo ci adolescence dañuy gën a neexi këf. maanaam seen xel comme du du way yenn way ni ma ko mën a waxee. Mhm. c'est normal dañuy jàng àddina. Mhm. foofu aussi état bi war na mën teg ay mécanisme yoo xamante ni bu ñuy bu ñuy bu ñuy yar xale ci wàllu instruction ñu lëkkale carrément li ñuy jàng ak li ñuy dund ba nga xamante ni xale bi da ci jële à la fois instruction ak éducation. je donne un exemple. Mhm. bu ñu en li bi ñuy jàngale xale yi li ñuy wax la reproduction humaine. mais ñu lire les les euh, yu ñuy jàngale reproduction humaine. Mm-hmm. c'est tellement basique c'est tellement euh, xam naa peut-être prof dañuy ruus ci suwa li ci sori topp ak yenn débat ak xale yi. waaw koy teg comme daal. comme daal ça a toujours été un sujet tabou comme ay rëboo waaw comme ay rëboo yu wax lii ak lii mooy indi lii wasalaam. alors que bu ñuy jàngalee mbir yooyu. Mm-hmm. on devait en profiter. pour régler wala pas mal de problème problème pour gën a mën a métamorphose bi nga xam ne si xale bi da koy jógee ba dem âge adulte métamorphose bi yaramam di am c'était le moment de poser ces problèmes de société. société pas wax ko rek de en mm-hmm. bu ñu def reproduction pour man reproduction humaine c'est là qu'il fallait parler des valeurs ci cours boobu noonu. Mm-hmm. c'est pas de la science mais c'est à côté. ok l'un ne va pas sans l'autre. sans l'autre fa la ñu war a xale yi ñu bàyyi xel ci di jàngal na lu ñuy ëmbee. nu mhm. ñuy wasini jàngal nañ leen lu indi doom. Mhm. mais nag ñu xam ne ah suñu société yii ah boo ëmbee. te amuloo jëkkër nii moo lii ngay dégg te soo teelee ëmb aussi lii moo la siy fekk mu liyee ko. ci mhm. si cours ba tey dañu war a indiwaal ci biir cours yooyu l'internet. waaw c'est la sécurité état bu seen société yi mais xale bi li ñu koy bañ a wax parents bi li ñu koy bañ a wax nii. waaw mais bu xale bi duggee ci internet rek gisal seen bopp bu duggee nag ci kenn kër gi ngeen dëkk. dëkk. booy wax ak moom di imagé di di di wodd wax ji di ko taaral di ko ba xale bi réer. danañ mhm. da nga koy yee. Mhm. ci sexualité mais tu es tellement évasif. maanaam duñu bëgg a tudd tudd baat yi. Mhm. duñu bëgg leeral yenn yenn yenn phénomènes yi da ngay xaw a di wax di image di image xale bi dafa di ful ci moom. xale boobu nga bàyyi gis nga boo demee tëdd su lonkee buntam. Mhm. ba ne ko karaj taal mbàjjam ëpp mën a bàyyi jël téléphone am smartphone am dugg ci biir mbiru mbàjjam. Mhm. langa ko doon wax de façon imagée ba xaw a ful moom da koy am live and direct maanaam en direct et de façon crue. loolu aussi à l'école nañ jéem a teg aussi sa débat sur la table. table. pas jàng xale yi internet naa internet mooy lëkkale ay ordinateur ñu ñu ñu ñu ñu ñu xamoon di def ay réseau à travers mhm. loolu c' est basique. nañu lëkkale loolu c' mooy li gën a yomb. il faut ñu il faut l' éducation ak la famille. Sénégal digg dëgg nañ ko waxta dee amuñu politique de famille. déet moom daal nañ ko waxta dund. <laughs> Sénégal amuñu politique de famille réellement am naa benn collègue bu ma koy faral di wax mais il a parfaitement raison. Mhm. am na politique d' éducation mais amul politique de famille. politique de famille ci ngay wax naa man ban type de sénégalais. laa bëgg pour sama réew. pour sama réew. comme ça tu fais tu te donnes ci sa biir njaboot. très bien njaboot nga koy commencé. ba ko yorul sa njaboot sax. Mm-hmm. bu ñëwee école ñu ne ko hey Sénégal bi ñu bëgg nii la war a mel. nii la war a mel. il est obligé de s'y adapter. parce que nii la réew mi soxla mu mel ko. d' accord loolu dañ ko war a repenser vraiment suñu politique de famille. Mm-hmm. repenser suñu suñu suñu politique d' éducation. ba lëkkale ko ak situation yi xew yi yi xew yi comme internet beeg yooyu. li ah, mën a yàq poli xelu xale yi. parce que boo seetaatee na bu dëgg yàlla suñu politique d'éducation ñun liñ mag ñi maire yi liñ daan jàng ba léegi moom la xale yi continuer di jàng rien n'a changé. peut-être sax dañ ci dañ ci génne lu bare sax. éducation morale bi ci amoon ak yeneen ak yeneen yépp c'était facultatif mais léegi sax daf cee amatul. voilà voilà vraiment doy na waar. voilà léegi euh, la preuve léegi xale nga gis xale bu am xale bu am bac xale bu am licence. xar bu am maîtrise euh, boo ko nee boo ko joxee ci benn point A mu wax la ci tari maanaam récité par cœur. Mhm. ba géex mais soo ko déggee ci situation du développement de compétence. compétence mu ne dëgg li mu mën. pratique bi. dèjà di lu ci saa si. loolu mooy loolu moo tax maanaam dañu war a repenser suñu système éducatif. c'est bizarre malheureusement loolu moo ngi dal nag dañuy wax. mais bu buñ ko bu bu desee lu dul rek ñu téye téye cëslaay yi ba nga xamante ni. Mhm. ñii ñu am maîtrise ci li ñuy wax problème bi commencé feeñ. loolu ñu ci bàyyi xel trop par rapport ak. moo taala waxtaan bi neex na mais technicien bi mu may def signe nee na ma il faut ñu tàggoo de waxtu jot na. <laughs> Ah, merci Awa waxtaan bi neex na kay maa ngi lay gërëm bu baax. Mhm. ci éduca ci euh, invitation bi. Mhm. Euh, di tàggatoo rek ci peut-être gërëm. Euh, sama waa bureau ONG ACTEV ñi ma ñi ma yebal fii ma ñëw fii mhm. di nuyu de passage euh, ki ñu denk li yi au bureau muy docteur Athie ak euh, Aïssatou Sow madame Ly mhm. di nuyu waa bureau mais aussi di wax rek aussi parents yi pour tàggatoo ñu leen mhm. nañu jàpp rek ni une une grossesse précoce c'est pas une fin en soi. du du natt boobu ko yàlla teg rek àddina am jeex na. li si bëri mën na si nekk rek ci lu mënees na ko tegaat ci raay. mën nañ jooyanti xale mën nañ ko jooyanti bi. te terewul xale boobu aussi man na amaat mën na am avenir. avenir waaw c'est pas parce que comme dal rek sa avenir jeex na yàqu na dana war ranger dans les tiroirs déedéet waaw bu kenn découragé nañuy yedd nañuy yar nañuy yee mais bu kenn découragé. d'accord euh, jërëjëf euh, Momar Talla Seck sociologue moom moo yore programme plaidoyer bu ACDEV euh, tey ji ñoo ngi doon waxtaan ci njeexitalu ëmb yu teel yi rawatina nag boo demee ci biir l'école bi mais gis nga. Euh, yaatal na ko vraiment ba ci biir kër yi ak jafe-jafe yi nga xam ne si moo fa am yépp Assane Thioune mu fete woon ci wàllu xarale gi ñu koy sant di ko gërëm ci jàppandalam mbokk yi ñu jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah defe naa suñu prochain numéro sax euh, le cinq lay doon encore ñu waxtaane beneen thématique fii ak suñu partenaires yi nekk ak DEF jaa ngeen